asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan ñu nuyu leen gërëm leen si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi koy ànd ak QTV yéen ñi nga xam ne nag yéen a ñuy faral di déglu si radio bi di téeméer ak ñett yu toftal ñett ak waaye di nuyu waale ñi nga xam ne tam saa su nekk ñu ñoo toppa si social media bi ñu indi leen xibaari digg bëccëg bi ngeen ànd see seen doomi ndey Linguère Bassin Loum si boppi xibaar yi di ngeen dégg ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum lekk gu sell gi fii si réewi Gambia ne jamono yi nag lépp loo xam ne dafa ajoo ak loolu nga xam ne nag mooy newspaper wala kayiti ciment yi nga xam ne dañ koy faral di raabee suñu lekk yi ne yooyu la nag jamono yi dinañ ko génnee fii si réewi Gambia ba mu set wecc ba tey ab kandring boo xam ne ñu ngi ko doon jaay ñu tuddee ko si Delta boobu la mbir tamit dinañ ko waxtaanee ak ñi nga xam ne ñoo amee wàllum lekk gu sell gi fii si réewi Gambia ba tey si boppi xibaar yi ñi nga xam ne nag ñoo nekk foofu si National Disaster Management Agency ñoom nag àndoon leen ak kooku nga xam ne nag mooy gouverneur bi foofu noonu sa réew yi base nemmeeku bërëb bi nga xam ne nag amoon leen ab yàqute si jamono nawet bi pour seet naka la leen di jàppale si yenn yàqute yi nga xam ne nag am neen ko seen bërëb boobu noonu ba tey lu mujj si boppi xibaar yi foofu noonu sa Sukuta Kingston di ngeen dégg ñoom it ñu ngee wane seen mer si ñàkk ndox bi nga xam ne nag ñu ngi koy wanteel ak ñàkk kurang lu dem si at yu bëree bëri mbokk yi ak yeneen i xibaar si gannaaw bàkk bi lay doon ñu andi si ay yaatal. mbokk yi comme ni leen ko waxee si boppi xibaar yi ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum lekk gu sell fii si réewi Gambia ñoom nag ñu ngi xamal askani réewi Gambia lépp loo xam ne dafa xeetoo ak semaine wala loolu nga xam ne sax mooy newspaper ne jamono yi nag duñ ko jëfandikoo fii si réewi Gambia. Food Safety and Quality Authority ñoom nag bu ñu leen déggee ñoo nekk ay nit ñoo xam ne nag ñu ngi yëngu si wàllum lekk fii si réewi Gambia ñoom nag ni kii fan yee ñu génn andi neen ab leeral jëmale ko nag si mbir yi nga xam ne nag mu ngi am fii si réewi Gambia lu si mel ni nag kayiti tabax maanaam di kayiti ciment yi ak loolu nga xam ne nag mooy newspaper ne du yàgg lool di leen ko aaye fii si réewi Gambia bu ñu ko seetloo di jëfandikoo loolu nga xam ne nag mooy newspaper wala loolu nga xam ne nag mooy kayiti semaine ñu gën koo xamee si kayiti tabax doon na ab mbir moo xam ne nag yàgg na fii si réewi Gambia te it yàgg neen di ko jëfandikoo bu ñëwee si loolu nga xam ne nag mooy jaay wala defar lekk te it ñi nga xam ne sax ñoo koy faral di gën di jëfandikoo mooy ñi nga xam ne nag dañuy faral di jaay lekk rawatina ñi nga xam ne nag ñoo amee seen yi tey jaay loolu nga xam ne nag mooy mbuuru ndax bu ñu ko seetloo kayiti tabax yi wala loolu nga xam ne nag mooy newspaper yi moom la ñuy faral di jëfandikoo di ko muuree loolu nga xam ne nag mooy suñu lekk yi kii nga xam ne nag mooy gestu lépp loo xam ne nag dafa ajo ak lekk seen bérébu liggéeykaay googu noonu di uyoo si ndey moom nag bu mu doon garal ay kaddoom nee na liggéey bi nga xam ne nag si leen soobu ñu ngi ko commencé nag di ko bàyyi xel ni ki weer bee ñu génn gis ne lu ëpp si askan gi nag ñu ngi jëfandikoo kayiti tabax yi wala li xam ne nag mooy newspaper yi te it ñoom nag def neen si seen kéemtalaay kàttan ba gis ne nag yooyu leen mbir nag dina daga fii nii si réewi Gambia te it boo ko seeloo am na si ñoo xam ne sax dañuy faral di jël yile kayit di defar loolu nga xam ne nag mooy lekk ñenn yi sax di ko muuree seen lekk yi nee na nag bile mbir moo tax ñoom nag ñu def seen kéemtalaay kàttan gis ne nag bile mbir dina daga fii si réewi Gambia te it boo ko seetloo lépp loo xam ne nag ñu ngi koy jëfandikoo lu aju si wàllum kayiti semaine bi wala loolu nga xam ne nag mooy newspaper bi doon na ab moo xam ne nag baaxul suñu wérgu yaram gi waaye ba tey kii nga xam ne nag mooy ndey mu ngi gën di garal ay kàddoom nee na pen bi nga xam ne sax moom la ñuy jël di ko bindee si newspaper yi doon na mbir moo xam ne nag dafa doy waar ndax boo ko seetloo ndoxi pen boobu noonu doon na mbir moo xam ne nag baaxul si askan gi pour ñu war koo jëfandikoo rawatina nag lu jëm si seen wérgu yaram te it boo ko seetloo am na ay loraange yoo xam ne mun na koo def si seen wérgu yaram waaye ba tey moom ndey mu ngi gën di gaaral ay kàddoom nee na lépp loo xam ne nag ajuwul ak wér-gu-yarami doomi aadama bi war naa doon mbir moo xam ne nag war na koo seetaat waaye ba tey moom ndey mu ngi di gaaral ay kàddoom nee na nag bu dee lekk yi nga xam ne nag ñu ngi koy jaay dañu ko toggee si anam gi nga xam ne nag noonu la gënee kon suñ koy demee nag ba di ko war a muur loolu nga xam ne nag mooy kayiti ciment yi ak loolu nga xam ne nag mooy newspaper yi war naa doon mbir moo xam nag war nañu ko seetaat lii nag waral na moom ndey mu ngee gën di gaaral ay kàddoom di ñaax askan gi ne ñu bàyyi xel kay di nga xam ne nag moom la ñuy muuree seen lekk yi ba tey ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum lekk gi fii si réewi Gambia dafa mel ni nag luwaa yi nga xam ne nag ñu ngi ko bugg a teg fii si réewi Gambia maanaam génnee loolu nga xam ne nag mooy si semaine ak loolu nga xam ne nag mooy newspaper pour ñu koy jëfandikoo fii si réewi Gambia dina doon mbir moo xam ne nag dina indi yokkute bu ñëwee nag suñu wàllu wér yaram gi. bu ñu ko seetloo dikka bu ñu xamee Cape Verde doon na ab dëkk boo xam ne nag seen jigéen yi ak seeni i góor yi yàlla nag daf leen dee may loolu nga xam ne nag mooy gudda fan ndax boo ko seetloo lu ëpp si askani réewi Cape Verde li nga xam ne nag moom la ñuy jëfandikoo si ay lekka doon na mbir yoo xam ne nag lu sell la ba tey bu ñu ko fàttale ko amoon na ab jamono boo xam ne nag am na naan bu génnoon ñu xamee woon ko si delta moom nag mu nekkoon ab naan boo xam ne gisoon nañ ne ab nduuj ndaaj moo si amoon ba waraloon na ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum lekk nekk gi fii si réewi Gambia daal di si teg seeni i ki nga xam ne nag mooy Mary Johnson moom nag jamono yi mooy seen kilifa bi si booba la béréb bi mu doon garal ay kàddoom ni ki londi bi ñu génn nag andi na ab leeral jëmale ko nag si booba la naan nee na businessman bi nga xam ne nag moo fi indi woon naan yi ne jamono yi daan yi nga xam ne yëpp tegoon neen ko si kawam doonoon na ab daan yoo xam ne nag daf ko nangutoo ak ñoom te it boo ko seetloo fépp foo xam ne nag jaay na fa ab naanam yi delluwaat na si yooyu la béréb dal di jëlaat naan yi nga xam ne nag jaay na leen ko ba pare te it yemut si loolu noonu képp koo xam ne nag jëloon na sa xaalis delloo na la xaalis bi nga xam ne nag jëlee woon na ko ci yow ba tey moom mairie mu ngi gën di gaaral ay kàddoom ne na képp koo xam ne nag yaa ngi si réewi Gambia te nga am looy jëndal war ngaa seet li nga xam ne nag moom nga bugg a jënd kañ lañu ko defar ak kañ la moo expire nee na bu dee jàngaloo mun ngaa seet ki nga xam ne nag jàng na su ko defee nag mu dal di la jàngal li nga xam ne nag moom leen binda te nga bugg a koo jënda li nga xam ne nag moom la askani réwi Gambia di tàkkeerlu jamono yi mooy seet ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum lekk gi fii si réewi Gambia bi leen mbir nga xam ne nag commencé nen ko ndax nekk mbir moo xam ne nag dañu koy continuer pour aar askani réewi Gambia bu ñëwee seen wàllu wérgu yaram gi mbokk yi comme niñ leen ko waxee si boppi xibaar yi National Disaster Management Agency ñoom nag ñu ngi doon def seen kéemtalaayi kàttan lii nag waraloon na ñu dem foofu noonu sa base ànd ak ki nga xam ne nag mooy seen gouverneur bi dal di nemmeeku ñi nga xam ne nag amoon neen ab yàqute si jamono nawet bi ñu nekk gannaaw nag bu gars yi doon wër di nemmeeku yenn béréb yi nga xam ne nag am neen yàqute si nawet bi ñu génn lii nag waral na ki nga xam ne nag mooy Sana Dahaba moom nag mooy njiiti ñu nga xam ne nag ñoo nekk foofu noonu sa NDMA moom nag bu muy gaaral ay kàddoom nee na bile mbir nag doon na ab mbir moo xam ne nag mu nga bàyyeekoo si vice président bi ànd si ak ki nga xam ne nag mooy président ni réew mi su ko defee nag ñu daal di nemmeeku béréb yi nga xam ne nag ñu ngi am yàqute fii si réewi Gambia rawatina ñi nga xam ne nag ñoo nekk si tundi base ak li ko wër lii nag waraloon na ñu ànd ak ki nga xam ne nag mooy seen gouverneur bi dal di nemmeeku yooyu la bërëb seet tamit naka leen leen di mun a jàppale si num gën a gaawee waaye ba tey moom Mr Sana Dahaba mu ngi gën di gaaral ay kaddoom nee na jamono yi nag mu ngi wane loolu nga xam ne nag mooy naxaram si ñenn si ñi xam ne nag ñu ngi si béréb boobu noonu ne am nañ ko nag si nawet bi ñu génna waaye ba tey moom Dahaba mu ngi gën di gaaral ay kàddoom di ñaax ñi nga xam ne nag ñoo dëkkee si boor boobu nañu tàmm nag di ji loolu nga xam ne nag mooy ay garab ndax boo ko seetloo dina dee jàppale askan gi rawatina nag bu ñëwee si wàllum nawet pour nga xam ne nag bu ngelaw gi amee doole dina am ay garab yoo xam ne nag dinañ fa nekk pour aar ngelaw gi pour mu andi leen ay yàqute si yooyu la béréb ba tey seen gouverneur bi di yoo si Fanta B.S Mané moom nag bu mu doon gaaral ay kaddoom si keroog bés ba nee na mu ngi ñaan képp koo xam ne nag da nga amee sa mbootaayu boppa wala ji nga xam ne sax ñoo nekk sa UN ñu ñoo jàppale ñi nga xam ne nag dañoo am yàqute bu mag rawatina nag si nawet bi ñu nekk ndax boo ko seetloo ëpp doole bi nay sax am na si béréb yoo xam ne foofu leen daan dugal seen jiw yi waaye dafa mel ni nag nawet bi am na doole boo xam ne nag àndoon na ak moom daal di leen yàqal yooyu la béréb ba tey ki nga xam ne nag moo leen toogal foofu noonu sa tumaana maanaam mu nekk foofu noonu seen ndéegi député yi di uyoo si Fodé Dramé moom nag mu ngee gërëm ñi nga xam ne nag ñooy National Disaster Management Agency ak gouverneur bi nga xam ne nag ànd neen ak moom pour def bile liggéey waaye ba tey moom mu ngi gën di gaaral ay kàddoom dina def kéemtalaay kàttanam nga xam ne nag bu ñu nekkee si néegi député yi dina indi façon ñu wax bi pour ñu mun a seet ñoom it naka leen leen di jàppalee bu ñëwee si wàllum koppar pour ñu mun a jàppale ñi nga xam ne nag am neen ay yàqute si yooyu la béréb bu ñu ko seetloo dafa mel ni naka yàqute yi ñu ngi génn a yokk fii si réewi Gambia bu ñëwee si wàllum nawet waaye ñi nga xam ne nag ñooy National Disaster Management Agency ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan bee gis ne nag bile mbir dina wàññeeku fii si réewi Gambia ndax saa su nekk ñu ngi seet naka la ñuy aaree askan gi ak seen i alal yi ba gis ne nag yàqute yi dina wàññeeku fii si réewi Gambia. ab béréb sa suukuta ñu ngeen koo xamee si Kingston ñoom nag nekk neen ay nit yoo xam ne ñu ngi wane seen naxar si ñàkk courant bi ak ndox bi nga xam ne nag ñu ngi koy am seen gox googu noonu lu dem si at yu bëree bëri foofu noonu sa suukuta Kingston ñoom nag ñu ngi jànkuwanteel loolu nga xam ne nag mooy ñàkk ndox ak courant lii nag waral na ñu daal di mer ba fippu daal di o ñi nga xam ne nag ñoo nekk fii si QTV di leen xamal ne nag lu dem si ay at amun loolu nga xam ne nag mooy ndox ak bu dee ñu ngi koy am sa nekkul ñu ngi koy am si nu ñu ko buggee ndax boo ko seetloo loolu nga xam ne nag mooy ndox bi day faral di ñëw diggante ñaari waxtu yi jàpp loolu nga xam ne nag mooy juróomi waxtu yi sa fajar te boo ko seetloo ëppa doole bi si askan gi yëpp ñu ngi seen lali di nelaw Bécaye suusoo bu ñu ñëwee nag si wàllum yokkute bi si seen kafoo googu noonu te it ba tey mu nekk ki nga xam ne nag moo amee seen kaddu gi moom nag bu mu doon gaaral ay kaddoom nee na nag ñoom nag dañoo bokk si réew mi de te war nañoo mun a am lépp loo xam ne nag réewi Gambie ñu ngi koy am rawatina nag bu ñëwee si loolu nga xam ne nag mooy courant ak ndox waaye boo ko seetloo dafa mel ni jamono yi nag ñoom dañoo sonn ndox saa su nekk ñu ngi jooy loolu nga xam ne nag mooy courant ak ndox foofu noonu sa Sukuta ba tax na moom Bécaye Souso mu ngi gën di gaaral ay kàddoom nee na ñi nga xam ne nag ñoo amee seen business si bopp wala benn benn yi nga xam ne sax ñu ngee jàppale na ñu ñëw si seen gox googu noonu nag pour ñu jàppale leen waaye ba tey moom Bekay Suso nee na emul foofu noonu de ndax mu ngee ñaan gi tamit ñu ñëw jàppale leen si jamono bii ñu toll ndax soxla neen loolu nga xam ne nag mooy ndimbal ba tey moom Suso mu ngee gën di garal ay kàddoom nee na nag ñoom waxtaanun ak ñi nga xam ne nag ñoo nekk foofu noonu di liggéey sa nawek waaye béréb boo gis nag am na koo xam ne moom leen jiital ki nga xam ne nag moom leen jiital mooy seen kansilo bi ne amoon na ab jamono nag demoon neen waxtaan ak moom si yile mbir lu aju si loolu nga xam ne nag mooy ñàkkam courant gi ak ndox bi foofu noonu sa Sukuta waaye ki nga xam ne nag mooy kansilo bi li nga xam ne nag moom la leen xamal mooy waxtaan na ak kii nga xam ne nag mooy njiiti nawet bi waaye li nga xam ne nag loolu la ko xamal mooy jamono yi nag ñu ngi wanteel ak ay jafe-jafe rawatina nag su ñëwee si générateur bi nga xam nag moo dee joxe ndox yi waaye ba tey moom suusoo mu ngee gën di gaaral ay kaddoom nee na am na yaakaar nag boo nekkee si nguur te nga am say jafe-jafe war ngaa mun a génnee say kàddu ndax nguur jàppale la tamit mu xam li nga xam ne nag moo nekk di dox sa yooyu la béréb keneen ki nga xam ne gaaral na fa kàddu di seen imam bi foofu noonu sa Sukuta Kingston moom nag mu ngi uyoo si imam Ahmad Fande moom nag bu muy gaaral ay kàddoom si kerobes ba nee na ndox nag doon na mbir moo xam ne lu am solo la rawatina nag bu ñëwee si wàllum islam te it boo ko seetloo jamono bii ñu toll li nga xam ne nag mooy ndox ñoom waa Sukuta soxla neen ko ngir setal seen bopp bu ñëwee si wàllum xeex feebar bi ñu xamee si coronavirus waaye ba tey moom imaam mu ngee gën di gaaral ay kàddoom nee na naka nit ki mënut a loolu nga xam ne naka mooy ndox na saa su nekk soxla na ndox pour jàppa dal di mun a julli waaye tamit gis na ne dina soxla ndox pour saa su nekk di ko jëfandikoo ba tey moom yaa imaam mu ngee gën di gaaral ay kàddoom nee na foofu noonu sa Sukuta Kingston doon na ab boo xam ne naka lu ëpp si ñoom maanaam lu toll si juróomi téeméeri ay nit dañuy faral di dem xam ne mooy ndox te it fu ñu koy utee mooy ab nit ku ku baax koo xam ne nag ñëwoon na si boobala béréb dal di leen sampal loolu nga xam ne nag mooy booxool te nee na fi booxool bi nekk ak fu nit ñi dee demee uti loolu nga xam ne nag mooy ndox doon na ab béréb boo xam ne nag fu sori la ba tax na moom yaa imaam mu ngi ñaax nguur gi ak ñeneen ñoo xam ne sax mun na leen a jàppale si bile mbir ñu ñëw jàppale leen ñoom ñi nga xam ne nag ñoo nekk foofu noonu sa Sukuta ba tey si keroog bés ba am na ñeneen ñoo xam ne tamit garaloon neen fa seen i kaddu ku si mel ni Mayla ak kooku nga xam ne nag mooy Mariama ñoom nag bu ñuy garal seen kaddu li nga xam ne nag moom leen xamal askan gi mooy saa su nekk nawet ñëw fogga seen i bunta jox leen loolu nga xam ne nag mooy bil pour ñu fay ko te it ñu ngee fay bil boo xam ne nag gisuñu ndox waaye ba tey ñi nga xam ne nag ñoo fa doon garal ay kaddu nee na bil bi sa boo ko seetloo xaalis bi nga xam ne sax moom leen fa dee binda doon na xaalis boo xam ne sa xaalis bu bëri la te it leen dee jaaxal bi xaalis naka la ko mën a fayee si ndox boo xam ne gisuñu ko foofu noonu sa Sukuta gannaaw bu askan gi foofu noonu sa Sukuta Kingston dal di garale seeni kaddu kenn si sun taskati xibaar yi nag fexe na ba waxtaan ak ki nga xam ne nag moo amee kàddu yu nawet ñu koy ooyee si Pierre Silva moom nag bu muy gaaral ay kàddoom si bile mbir na bu ñëwee si wàllum ndox fii nii si Banjul ak li ko wër doon na mbir moo xam ne nag ñu ngi koy jànkuwanteel waaye li nga xam ne nag bëgg na koo xamal askani réewi Gambia nee na bile mbir nag léegi tey mu doon lu ñuy laam-laamee ndax boo ko seetloo ñi nga xam ne nag ñooy bàyyi ndawe gi ñu ngi si ab liggéey boo xam ne naka am neen yaakaar ne bu liggéey bi sottee lépp loo xam ne naka wàllum ñàkk ndox la ak wàllum ñàkkam kuram fii si réewi Gambia dina doon mbir moo xam ne naka dañu koy laam-laamee mbokk yi dafa mel ni lii la ñuy waxtu mayoon ñu ngi leen di gërëm si ànd bi nga xam ne saa su nekk yeneen koy ànd ak QTV rawatina nag seen xibaar yi diggi bëccëg bi di leen jox dig daje insa allahu rabbi ba ëllëg si benn waxtu gi jërë ngeen ñu yendoo jàmm